déglu leen tey ma bàkkati mbër yàlla mi fale fal na ko buur déglu leen tey ma bàkkati mbër yàlla mi fale fal na ko buur ASG ah, production di chaîne boo xamante ni day dox ci yaatal liggéeyu sëriñ bi mooy jaajëfal bu baax mbooleem internet yi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ni nag fàtte abonné daal taal cloche de notification bi bismillahi baadal az bala may ci mbokk mi te jiitu mbokkam yi barzaqan a cheikh Mouhamadul Mokhtar ma di tànneef mutlaqan yaa xafaare yi way juram cheikh Ibrahima di maamam sëriñ Modou Mokhtar doomi joor moo di mbokkam noo ngi ko koy jaale mok serigne atex mbacke may rakam ak serigne modou mahfouz ak ahmadou ay mbokam ak mbolam njabotou cheikh awa balla ñimu bokal njabotou ndayen serigne mustapha lañu jital as gor la won amu fit manon na dawal ak fetal bu yon khata buy dawal nga gis mu dal di fetal taba jitu won ahmadou te donon sama xarit dan dundu ku tedd ki ba tax mu nekkon sama xarit njabot gi mu bayyi seen rangoñ nay féré ci léram ak a bëggoon ku tedd ki moko téru fa mu jëm donul ku ñu wara joy xana koy di ko wallahi xamna ci mom lol ku ko xam di ko marché bima def ci mom daf ko mérité wo bu wër Aget sama digang mom, njabot gi ñepp le bir noo ngi taasu ci leram mo ne ko fa jitu won ci ay mam ak bay ñu bax ne ko jitu won khadim sama yalla man nama koy beugelal namuy beugelal sa bay wax dina melni fetal ahmad ibn osman moo def ci magam wala rem xaritam bi jitu شيخ محمد المختار ابن الشيخ هو بالله تعالوا منان السلام